démb barki démb ba tey le mot le plus partagé c'est report report report euh, fan la rumeuru report yooyu jóge ballon de sonne la wala va-t-on vers un report de l'élection présidentielle may mun a report leen rek moo ko mënoon indi waxtaane nañ ko fii ñu ko waxtaanee mani la Cour suprême li nga xam ne nii opposition bi dugal nañ ko fa jëm ci senaa bi buñ ko dindiwul ba opposition bi annulé lu jëm ci Sénat bi report day am bañ ko waxtaanee ba pare cour ba ma xëy suba ma gis opposition bi lañ defoon cour suprême ñu dindi ko bind ni ñoom renoncé nañ ci recours bi et cetera loolu weesu n'est-ce pas xam loolu dund nañ ko. tey nag boo bëggee reporter élection yi naka nga ko mën a Sénégal amul guerre Sénégal amul attaque terroriste. Sénégal euh, joxe nañ listu candidats yi listu candidat yi am na crise nag crise institutionnelle crise institutionnelle am na fi mhm. parce que bu ñu demee ba commission d'enquête parlementaire ñu créé ko assemblée nationale commission boobu divisé ay magistrats yu conseil constitutionnel pour corruption wàllum ger loolu crise institutionnelle bu garaaw a garaaw la un précédent loolu loolu man mosuma loolu mosul am ci histoire u Sénégal crise institutionnelle boobu nag fan la jëm loolu mooy wax bi parce que bu fekkee par exemple conseil constitutionnel démissionné nañ wala kenn démissionné wala génn nañ ci yëf yi euh, processus bi day yàqu. non processus bi du yàqu. lu tax justement. attends alors. en cas de démission. d'un ou des membre du conseil constitutionnel. ils sont remplacés et ils terminent le mandat du démissionnaire alors il ne peut l'article alors de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 stipule mmh. Mmh. il ne peut être mis fin avant l'expiration de leur mandat aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande ou pour incapacité physique et sur l'avis conforme du Conseil. Dans tous les cas, l'intéressé est entendu par le Conseil et reçoit communication de son dossier. L'empêchement temporaire d'un membre du Conseil est constaté par le Conseil. Si cet empêchement se prolonge au-delà d'une durée de 60 jours, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé dans les conditions prévenues, pré prévues au premier alinéa. article concernant euh, euh, beneen article muy article 93 de la Constitution sauf cas de flagrant délit les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis arrêtés détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres de la Cour euh, suprême et de la Cour des des des des des des, des comptes en cas de démission mu dem ci beneen article euh, l'article 23 de la loi organique euh, qui dit le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres, si l'un des membres du Conseil temporairement empêché est temporairement empêché, c'est le, pré le président, le vice-président qui assure son intérim. Ça veut dire que. li ngay wax yëpp bokkul ak li may wax. Hmm. <laughs> day wax ak li may wax bokkuñu laalewuñu dañ ni trois membre rek bu ñu quitté au plus conseil bi mënatul délibéré. ils sont remplacés. defal ndànk defal ndànk xam nga li ngay wax mooy naka la benn di kenn di démissionné kenn di dugg kenn di génne tey bu conseil constitutionnel yëpp démissionné woon luy xew. on met en place un nouveau conseil constitutionnel. Ah, dans quelle forme dans quelles conditions dama bëgg rek nga saisir ni crise bu garaaw la ñuy dund fi ñu toll nii. est-ce que xam nga baax li mën a bëgg a wax maintenant dama jàpp ni président de la république fii la rôle am amee parce que bu nee la gardien des institutions loolu mooy sa liggéey maanaam ñu ngi ci situation boo xam ne ay élections lañ jëm élections yi c'est dans quatre semaine problème bu mel nii am na li nga war a def mooy jël say matuwaay. jéem a xool looy déburier ba sauver processus bi man loolu laa gis parce que ñi def lii visé commission d'enquête bi visé juge juge nii ñu ko nii rek pour def ko de parce que il faut savoir que conseil constitutionnel mooy mooy surveiller processus bi du début à bu proclamer résultat yi ba pare mooy suivre processus bi après mooy proclamer résultat yi donc voilà mais li ma mën a xam mooy tey boo nee da ngay reporter élection Sénégal faw nga teg ci loxo nit ñi lu leer nañ parce que élection boo xam ne nii candidats yi déclaré wu nañ conseil constitutionnel statué na liste candidats yi définitivement jeex na matériel électoral bi sax acheminé nañ ko est que xam nga loolu parce que état Sénégal dañoo tàmm élection bulletins yi ñu ngi koy imprimer. léegi tey boo bëggee reporter élection bi lay wax nit ñi. mais Yérim. Hmm. sur ce chapitre là. Ah. concernant le conseil constitutionnel. Ah. xam nga am na des hommes politiques yu ne. Hmm. l'objectif de la manœuvre. Hmm. c'est de mettre la pression sur les membres du conseil constitutionnel ba ñu démissionner. sauf que bu ñu démissionner on met en place un homme de nouveaux membres. loolu mënul motiver un report sauf si on a réellement envie de de de reporter. bu ñu démissionner. bu ñu démissionné sa va créer une situation juridique bu compliquée bu graaw. waaw man maa la ko wax. c'est-à-dire je nekk. léegi problème bi mooy un motif xaaral xaaral rek xaaral defal ndànk. yàlla nañ bañ a démissionné est-ce que dégg nga waxal bi. 93 mm-hmm. Kéba Mbaye kese moo démissionné woon ñu remplacé ko. fii trois membres bu ñu démissionné la composition devient irrégulière ñett. yàlla nañ bañ a démissionné ci gàttal parce que waxuma la sax mais bu ñu démissionné woon imagine-toi chaos bi ngay créé et puis attends est-ce que tu te rends que c'est le parlement c'est-à-dire aujourd'hui dépassé na PDS parce que groupe parlementaire PDS ñoom ñoo ñoom ñoo déposé demande de commission d'enquête bi mais assemblée avec les l'aide ndimbalu APR ñoo ko voté donc léegi seen commission d'enquête boo xam ni assemblée nationale la concernée cest dire le pouvoir législatif jëm ci pouvoir judiciaire soxna si li crise institutionnelle bu grave la